yóbbu seeraas dañ ko yóbbu seeraas sekk ah wax nga mën na jënd laa gën a aay. <laughs> jënd ko. jënd laa gën a aay. jënd kon baax na sekk asalaamaaleykum wa rahmatulah. bisimilah rahmaani rahiim. <laughs> bisimilah rahmaani rahiim. bisimilah rahmaani rahiim. bisimilah rahmaani rahiim. bisimilah rahmaani rahiim. bisimilah rahmaani rahiim. Mm-hmm. bisimilah rahmaani rahiim. asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulah. bu doon Walf Fadjri nga dégg technicien bi naan micro. <laughs> non yow Cheikh mi lay dégg. waaw Cheikh sax lay dégg. moom day seetaan Saal mi nag 24 heures sur Cheikh na Moustapha ak Abdallah Kaar yàlla nañu yokk. kon de nama baal nag yàlla war fi yokk xool xool du ñu rate du ñu rate Saal mi ñu ngi leen di nuyu baax. dem maa lay seen Saal mi dem. sëñ Cheikh ñu lay ziar bu ah ziar ko bu baax ah, ziar bu baax suñu sëriñ la ku baax ku baax la nit bu baax la xam naa sax dina ma ne bon xam naa euh, sans limite moom ma ko invitation la rek waaw <laughs> dara da dama rek pour waxtaan hmm, balaa ñu may con balaa ñu may convoqué waaw <laughs> yow xam nga may wax <laughs> dañ leen électron libre électron libre. xam nga dañ la la waaj a waaj dañ ko ne xulil waaj dañ ko ne signal mu ne la ma signal la mu doon ñu ne ko daal maanaam li nga soxla yëpp daanu la ko jox waaye moom waaj ne leen waaj ne leen xulil ahlan man daal. dem dikk rek waaye tënk moom banañ ko dem dikk la naxante sikk jàmm ak ñëpp waaw libre li waa ji doon wax libre non man moom dañ maa tënk moom moo tax classe gi ñoom ak ñoom ayoba ayoba fi émission ba pare nu <laughs> ko ay eh waay manka mankaare ne manka masaw agression bi ah, ñu koy dal bu baax ay yëpp ay sarax la cat la xeex Macky Sall donc ba mucc ci faaw dara génn wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla sàmm ayoba yàlla na yàlla def euh, loolu nga ñàkk yàlla fulal la ko muy fan wu gudd wér xéewal bu yaatu donkaasi gi ak jaboot ga barkeel mucc muccale ak mujj ga rafet yàlla na nga am ay teraanga ba toog di ko fàttaliku di ko reetaan di ko wax sa njaboot euh, sëñ bi sarax dafa baax mm. Sénégal nañuy xëy di saraxe ndox di joxe ñam réew mi naat sëñ bi maas mm. tey ji nii man bu ma la joxee danga may jox bu ma la joxee tàngal ma nga jox ma tàngal mm. ma jox kii guro mu jox kii euh, suukar ki sarax la suñu biir la day neex. mais loolu teraanga la mais nag loolu du sarax quoi. wa waay eh. eh. Ah, du sarax du sarax. moom nag xam nga lu ko yàq. fu mu dem wal fajari fa <laughs> xam lu ko yàq. fu mu dem wal fajari fa débat la ñemee te bëgg loolu sarax wuy ma waa sarax day duun waaj waay déglu xam nga boo jox nit ki da nga koy jox loo xamante ne tey ji bu ko dugalee ci njël li mu mën ko ma ne la foo dem wal fajari fa déglu ma wax la tàndarma yi ma Pape Assane jox kon yow mosulaa jox lu duun wa musula koo jox non mukk ah yee ay tàndarma ki ay soccu Aba Sawda kon euh, ñàkk ngaa dajeeg moom ci ay ah. couloir nag. moo ko mën a wala wala day rogala daa am ñu ñu ñu. voilà mais kii ya mën bruit de couloir. mais nag mais nag ah. mais nag. li muy wax tuddee sarax c'est important. lu baax la mais sarax bu ñu demee ba ci préciser naan ñaari mbuusu ndox ak euh, ay ay tàndarmaaki mais loolu c'est mystique nekkatul sarax sarax bu demee ba ñu lay wax ay lim. nekkatul sarax et puis booy jox nit ki jox ko loo xamante ne bu ko duggalee ci njël li mu jariñ ko dana wal faj sarax bi nga gën a bett dana wal fekk euh, fuqaraaw wal fuqaraaw almasaakin dana wal mel ni maas mbub nga jékki-jékki këmpal ko benn junni dana wal fa mu bett ko ah. loolu mooy sarax bi gën dana wal fa de ah. mais jël ndox moo xamante ne ah, mais quand dana wal fa de bu ngeen xafee mu ne technicien yi Abdou Aziz am di kulil <laughs> yàlla na fi yàlla wàcc xéwal barkeeg yow jàmm teraanga def réew mi neex sa si yow réew mi daa war a neex wala yéen gisu leen loolu warut a neex ah, sama mbokk journaliste yi dama leen di ñaan benn affaire gatsa gatsa weesu na <coughs> pourquoi ñuy force forcer APR gatsa gatsa de salon jarul wax gat APR mu APR mu gatsa gatsa parce que APR moom bu bu nee gat rek nit ñi fekk leen fa nit ñi mbooloo mi askan wi ñoo leen di fekk foofu donc nañu bàyyi presse bi mhm. nañu bàyyi créer dualité fu amul APR parti moor la mhm. ci jamono bii xanaa nguur yi fi nekk def musiba maaba kumba gu raw ñoom la ñu def ah. pour que ñu dundaat waaye sénégalais yi mere nañ leen mere goo xam ne ay nag droit yooyu ka ne am nga droit APR am nañu droit yuuxu ba sa kaw mm. sa liiru nag ne waaw lii doxul lii demoon kii kaka ci wax rek ñu ne la d'accord merci ba nga toogee ba nga toogee ne malheureusement yow ba nga toogee defoo Mhm. mais amul problème comme am nga droit wax waxal waaye buñ la wooyee na nga ji nag <laughs> amul kii de. mais mooy mooy mooy démocratie. na nga wuy ji. Mhm. waxtaan ci jàmm boo demee wuy ji moom taxul ñu téye la dañuy xool rek bu baaxee alhamdulilah bu leneen amee itam ñu ne ah lii de la yàlla dogal suñu borom ñaan rek yàlla suñu borom du dëkk te rafetal. Mhm. danoo fat mais nag mais nag mais nga li may yokk ci loolu. maas la de dana wal fa de. waaw waaw la bàyyi ma gis nga démocratie bu ñu koy wax. oui. Hmm? Hmm? il faut un pouvoir qui dirige une opposition qui s'oppose c'est la démocratie. oui ah, il le ñu war a wax nañu wax ñi war a génn nañ génn mais ko rek li ma li ma reetaan loo ci bi ñuy soutenir Bah Diakhaté. mooy bi gars yi di wax ak bi ñuy dóoree lacrymogène yi donc <laughs> je te jure ministre yi fa nekkoon nag député yëpp dañoo mais xamuñu ko. xamuñu ko te et puis c'est gis nga xoolal loolu ñu leen mosoon noonu ci lacrymogène baax na ci ñoom ngir ñu xam ñoom li askan wi daan daj mhm. li activistes yi daan daj mm. parce que mooy ñu woon ñoom mooy ñu woon essence boobu ñu toog mhm. taxaw di wax suñu soxla danga daan taxaw en tant que journaliste wala lan taxaw di wax mais yeggalew sax ñu ni bim lacrymogène yi mm. mais keroog biñ ci mosee ñoom ah. xoolal bëgguma tu ki fi nekkoon ministre rek ka nekkoon assemblée nationale ñoom ñëpp seen dàll fa lañ ko bàyyi. ñëpp a mm-hmm. daw. <coughs> kon nag seen c'est normal pour ñoom aussi ñu xam li gars yi doon daj. Mm-hmm. dañu bëgg opposé wu nañu ñeme terrain bi. il faut que ñoom ñu génn. Mm-hmm. aussi affronte bu ñu bëggee manifester nañ manifester. mais aussi réew mi baax seen mi ngi koy wax. état de droit la nekk. ñoom ñoo fi nekkoon naan force restera à la loi fii ku fi ku fi lan ñu timbax la ko ku fi lan. ah nuñ ko paase nuñ ko waxee woon. Hmm? ku fa lan ko ko ndëri mbax ñu dimbax la ko nga ko APR dinaa la wax benn mbax ñu dimbax la ko. APR nag seen ay c'est aussi. Mhm. ñoom ñu jot seen dose encore une fois. Mhm. mais nag ça pas dire que aussi euh, dañu war a dem ci euh, bañ leen non ils font partie euh, de la population. am nañu droit opposé wu. Mhm. mais dañu yor parti bu leen neexee kon ñu reconquête du pouvoir ñu mën ko def. mais nañ ko def ci yoon te avant loolu nañu gox. la ñu jël. jërëjëf c'est important. jërëjëf euh, euh, Mass alors ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax xam ngeen ni euh, Café Actu nii lay tëddee saa su ne ñii laajte Ngoné saali Ngoné maa ko yónni. waaw yónneeti naa yónneeti naa xale yi. dëkk comme yónneewoon nañ mami. Mhm. ñëwagul ñu yónni. <coughs> ñu yónni ñu comme ñun ñëpp mënatuñoo dem léegi. mën ah man kay maak yow jaaxle waaye bu ñu demee ñu xam ne mën nañoo dem nag dëgg menacé wu ma kenn dégg nga. ak leen nuyu bu baax a baax a baax alors Euh, Ngone Saliou euh, ak euh, ajaratu mam yi ñoo leen yoon yónni incha allah dinañu dellu si sur le plateau daal di ànd ak ñun café ak cuuni lay tëddee la revue des titres la ñuy dooree daal di leen a dégtal li yi daal di xëyee ci bésub tay bi daal di ciy toftal ak ci commenté xam ngeen ne mbaas mbuub la ñuy àndal fu malaat bu yàlla defee mu yeewu ci jàmm <laughs> daal di ñuy <laughs> sur le plateau ñu daal di mën a ànd ci waxtaan bi alors Euh, sans tarder dañuy def une petite transition et revenir sur le plateau daal di leen jox seen première tasse de café pour démarrer votre